le vrai président mooy ki nga xamni li li yitteel Sénégalais direct lolo ko tax a même si même si personne ne le voit lui il aura la satisfaction d'avoir servi les Sénégalais mais duñ ko def dañuy dem jënd yo xam si ni tubaab yi lay neex tubaab yi lay jural emploi tubaab yi lay jural liguey tubaab yi ñoo siy kontaan bo demé ben terre ngi ni commandé nako ça veut dire que ni en partie du moment nga commander lolu jox nga tubaab jox nga jox nga Sénégalais jox nga tubaab yoy liguey ils vont embaucher qui va payer ñun ñoy payer bëgg nañ yoy yëpp métro bëgg nañ ko bëgg nañ ay TGV mais dafa am luko jitu na minde fi nan ndox mu sel bay faal loolu mo jitu na minde fi am courant y a des priorités y a des choses directes des des actions directes yo xamanteni ni moy tax minde fi sénégalais yi xawa nek touti ci l'aise après yow tu peux te permettre ne légui damay def yenn avancées yu mel nii parce que tollu nañ si mais yow gis nga ndox mi ñi nan nit ñi ñi ngi koy génne si internet bi les gens ils s'en foutent kenn du wati si mbedd bi ne lii ñoo bañ yeneen ñuy rey vous nous empoisonnez y a personne qui le dit et si tu le dis à la télé ñu ne qui kii les bëri léegi ñun sax dañuy dem léegi ba dañuy accepter affaire yooyu noonu dañ leen koy yombalal ba mu ëpp man ce qui me fait mal moi quand je regarde leur télé quand j'écoute leurs promoteurs de lutte parler de politique quand j'écoute leur yenn quand ils parlent de l'État mais tu as l'impression que ni paradise la qu'on wi di dund ñooñu ce sont des vendus xaalis biñ leen di jox taxna soxore nañoo wax souffrance bi askan bi di dund soxore nañ ko ndax xaalis bi ñu yaakaar ci état bi. te euh, promoteur yooyu noonu ñi tax ñu populaire ñi tax ñu am doole ba mën a teg ay ay affaire ñooñu noonu lañuy ñuy dem tayle te lenn waralu ko lu ludul alal ji leen état bi di jox. tey jii wax mu benn sportif yooyu nga xam si ni bu ñu tëggee combat banlieue bi yëpp bàbbeeku bëggatuñu dara ñiy xeex ñi di rey seen bopp. ñom ñoy dem fess dell di la supporter yow buñ la joxé micro lan ngay ñëk def. te pourtant askan wu fepp fu ñek ci aduna àdduna bi askan wi ñu dumooy ñoom ñoo leen fi yow ak lepp luñ doon ñu nekk ay star yi way ñu nekk ay sportif lepp luñ doon askan wi ñu baña a jëral part askan wi ñu baña dénoncer askan wi ñu baña jakar jàkkaarloo nguur yi won askan ñoom ñoo leen def ñom lañ nekk. limal ma kenn ci ñom ci gaay yi nekk si kaw di laal kenn ci ñom bo xam buñ ñu ko joxee micro li muy njëkk a xalaat sama askan samay fans

ci suñu sëriñ si ndax ñu ci suñu musique wala ñu ndax ñu ci suñu sport ñu daal di nelawaat. gars yi nag il est temps il est temps leen di muus def ci wax yow am na solo quoi am na solo lool.